درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما waaye fi may jeexale mooy li mujj a wax ci àddinaam xam ni biig la ko nijaayam sëriñ daar Mouhamed Alioune Gueye tiim muy wax laa ilaha fajar gi bi mu ñëwee di ko xool si daal di leen yaay ji nee na laa ilaha illallah la wax ba dem kon nañ ko dolli ñaan fukki at ak juróom ñaar la amoon ku jëloon njàng mu di mën xëjam la woon افترى على الله كذبا اهلا يا نيب الحمد لله ينقب عينينا والحمد لله رب العالمين ين سنت يلا خمنا يلا سبنا لين نسنت يلا خمنا يلا سبنا السلام عليكم ورحمه الله بوكو جوليت ني بوكو القران نيغي لين دي نوي نيب di len massaw di len jale suñu rak suñu jarbat ñi nga xamne mom moy sayda fatima Alxasan Guèye donte ne xamuñ ko ba keroog yàlla di ko jël waaye bàyyi na fi loo xamante ne ci lañ ko xamee te ci lañu amee cofeel ak wegeel ñeel ko ñaan yàlla yàlla yàlla teral ko yàlla na yàlla màggal payam bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ci barke alquran bi mu bëggoon di fàttali rek benn mbir moo xamante ni nit ñi war nañ cee bàyyi xel mooy ka ne Fatima xale la adduna bi soxla woon na ko mbaax soxlawoon na ko mbon tamit soxla woon na ko yàlla soxla na ko waaye macha allah yàlla defal tawfiq ay waajuram ba ñu jël ko jébbal ko yàlla mooy ñu jébbal ko alquran jébbal ko lu jëm ci lu koy jëriñ adduna ak yàlla defal leen tawfiq tamit ndeke fanam guddutoon waaye mu génn àdduna ci loolu ba dégg nañ am ku ne waajuram bu jigéen seede na ne laa ilaha illa allah la mujjee wax te yenent bi sallallahu wax na ci xadis yu wér ne képp koo xamante ni baatu laa ilaha illa allah nga mujjee wax rek kooku nitu aljana la yàlla bu yàlla tas yaakaar foofu di fàttali ba tey waajur yi nga xamante ni àdduna bi daf leen a këf ba darajaayu àdduna yi daf leen a yiir walis darajaayu yawmal qiyaam wala dara darajaayu aljana yi ñu ngi leen di wax ne àdduna bi ndeem day jeex rek loo fi dund ak loo fi am yëpp boo ko comparé allaaxira dunduk allaaxira bi amul benn sens amul benn njëriñ allaaxira wala aljana sax laay wax noonu la amee ay darajaat darajaat gisee ay ingénieur di fi wut ay médecin di fi wut ay ay leneen ak leneen yeneen daraja yi nga xamante ni yu kawe la ñi nga xamante ni ci gouvernement bi lañ nekk ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy procureur yeeg ñoom ñooy juge yeeg yu mel noonu yooyu yëpp ay darajaat yu kawe la waaye aljana tamit noonu la amee ay darajaat yu kawe te malheureusement jullit ñi lu gën a bëri ci ñoom xamuñ sax existence darajaat yooyu noonu te nit ki li mu xamul du ko sàkku nit ki lu mu xamul du ko sàkku aka neexoon ñu xam lan mooy darajaatul qanitin lan mooy darajaatul raakiin lan mooy darajaatul saajidin lan mooy darajaatul mutasaddiqin lan mooy darajaatul darajaat yi bëri nañ darajaatul qaariin aka neexoon ñu xam darajaat yooyu noonu ñooy lan ak puukare bi nan lay mel suba yowmal qiyam ci kanamu ñeneen ñi amut loolu kon yaakaar naa ñëpp dinañ rëj rëjloo pour sonn ci loolu noonu alhamdulillah Seyda Fatima mii nii moom yàlla suturaal na ko ba njort nañ ne dina bokk ci darajaatu saalihiin alqaariin aw darajaatu saalihaati alqaanitaat walqaariaat yàlla na yàlla defal ko loolu noonu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di wax di fàttali suñu bopp di fàttali mboolem waajur yi kane dëgg la nit ki war na sonn ci njabootam nu ñu dundee ci kaw suuf bii nii parce que yàlla moom moo ko wax ci alquran ne wa fi ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia wa axsin kama axsana allahu ilayk na nga sàkku li la yàlla dencal suba yowmal qiyaam te bul fàtte sa cër ci àdduna bul fàtte sa cër ci àdduna tafasir yeeg yëpp mën na bëri ndax bul fàtte sa cër ndax ci àdduna bi nii foofu ngay amee li la yàlla dencal suba yowmal qiyaam kon yenentu bi sallallahu alayhi moo ñu firil loolu noonu ci xadis mu ne nanga na nga jëfal sa àdduna ba mu mel ni doo fi mës a jóge mu ne waaye na nga jëfal sa àllaaxira ba mu mel ni suba nga fiy jóge ki nga xam ne day jëfal àdduna te mu wóor ko ne du fi mës a jóge kooku du yàkkamti kooku du du du rëj loo ci yoo xam ne jaru ko waaye ki nga xam ne day liggéeyal yawmal qiyaam te mu wóor ko ne suba lay dee kooku lépp lu mu amoon dina ko investir ci loolu noonu kon nañu bàyyi xel bu baax yenentu bi façon bi muy waxee moo ngi ñuy junjune lépp lu ngeen sonn ngir yawmal qiyaam de jar na ko waye lépp lu ngeen son pour aduna xam len ne jaruko yàlla ñu yàlla defal tawfiiqu xam lolu xamé ko bi jahi rasulillah benen yon ñoo ngi ñaanalaat suñu rak joju noonu ñaan yàlla yàlla nako yàlla acci illiyina illiyiina maa al anbiyaai wa wa siddiqiina wa shuhadaai wa wa xasuna ulaayika rafiqa الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الذي يصلي عليكم وملائكته